ñu dem jël borom këll bi dafa mel ni moom mooy gérer lépp lu jëm ci. ñëwal ñëwal ñëwal ñëwal lépp luy jël lépp luy dem ci wàllum wàllum ket bi. waaw moom moom moo koy gérer. grand salaamaaleykum. waaleykum salaam ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar bu wér tur maa ngi wuyoo si turu Youga Fally Diop. aussi fi nga nekk ci université waaw man nouveau bachelier la NB la maa ngi département anglais. département anglais nga nekk. département anglais. d'accord naka nga dundee bés waaw bis bi dafa nekk bis boo xam ne bis bu màgg la macha allah parce que lii suñ koy def day nekk loo xam ne mbégte la ñuy àndal ak mbégte boo xam ne tey jii nii lépp lu ñuy def si koor gi di mbajaal di jël dañ si dégg nekk si mbajaal gi surtout si mbajaal gi. que mën nga romb nit ne ko yaay booy looy def si aadiya mu ci patu la dem parfois nga wax ak nit ne ko œuvrer pour Dieu à les hommes mu dem mais man damaa samay clé bopp man damay ñëw ne la bismillah nga jox ma baax na soo ma joxul xayrun mais soo ma joxul dinaa la ne. Euh,

Comme il l'a dit, œuvrer pour Dieu à travers les hommes. Voilà, voilà leur credo, voilà, voilà leur mot. Lui aussi, c'est un jeune slameur. Hein. Nous allons expliquer nous milieu bobu naka la ci évoluer ak lan moko ci duggal. Waaw, milieu bi nak luma ci duggal lenn la. En tant que président, en tant que leader, comme les Anglais disent, a good leader is someone who chooses the way, shows the way and knows the way. moo tax tey jii ma xam ni slam bi daf may am lu may apporter ci sama leadership man moo tax ma utiliser ko def ko benn passion benn loisir moo xam ne man dama koy utiliser à chaque fois di ko foowee uhhuh ces gens vous les voyez ce sont des jeunes vraiment pétris de talent parce que les gis ci tali alors que mi ngi dans ci domaine am Baywara, ci donc euh, tourbe. Yuga waaten Yuga Diop merci beaucoup ok l'université des systèmes maudits quand est-ce le sort terra Le Satan déchaîné nous attend du piège que lui seul enlèvera. C'est pourquoi matin et soir, nous demandons Sénégal, Université de Dieu, est-ce que ça va Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en cherche. Mais des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, on en cherche. Quand la voix des sans-voix n'est plus écoutée, qu'est-ce qu'on entend à hurler Boss. Avec Boss des médias, nous hurlons nos mots, notre soif, mais à tour de rôle. Dois-je parler pour le cœur ou parler pour mon esprit Mais non, parlons. Parlons pour asseoir foule, faïda et dignité dans nos cœurs et un cœur. Mais parlons. Yoga Fall une très belle voix, de